remercier madame Aminata Mbengue Ndiaye parce que kooku foog naa ne cursus am Sénégal yëpp xam nañ ko mooy ku ñëpp naw la ku Sénégal yëpp naw la ku Sénégal yëpp fonk la mu reprendre partie socialiste ànd ci ak ngor di gunge le président Macky Sall ci ànd bi gën a rafet tey ñoom dañu nekk en session haut conseil des collectivités territorial foog naa ay maire ñoo fa nekk ak des élus ñooñu war a waxtaan ci seen ay gox waxtaan bi nag lan moo ko yundu dañoo tay tay comme buñ né étude spéciale booy foog na Touba rek la mais suñ wax suñ ci suñ ko proposer pour Dakar proposé ko si yenen département c'est juste proposition la ñom dañuy waxtaan pour xelal président diagnostic bi ñu def njàngat bi ñu def coono yi ñuy daj ci seen mairie yi ñu defal ko ci jàngat jox ko ko léegi jàngat bi xam nga mooy lan mooy tey dañoo gis ne à Dakar 19 communes la 19 communes yëpp am na maire maire yi ñi ngi def li ñu war a def dans leur commune mais tey ville de Dakar tey lan lay def ban territoire lay gérer fonds yi mu yor am na fan la ko war a def su am na hôpital géré. mais ñu mën wax ba nga xam ne renforcer les maires ba statut ñu jël ñu ville de Dakar am feneen orientation renforcer les maires des communes pour ñu gën am doole loolu mooy seen président Macky Sall waxu si kenn waxu si waxtaan la pour proposer ko ñom ñoo def seen jangat te ñi ngi en session pareeguñu mais tey gis na ay oppos opposants yu mel ne Barthélémy Dias xam nga koo xam ne moom wax dëgg yàlla gémmiñam du wax musul musul wax jàmm musul wax jàmm mo waral tay mu genn nan Macky Sall dina fi dina dafa bëgg a nommer maire de Dakar le président Macky Sall dina def 3e mandat chaque jour du wax jàmm dem na sax. dem na sax banaan naan statut statut spécial bi Touba la gën a jekkee juste rek pour communauté mouride bi def action wala réagir donc ñu koy woo jeune la maire la war na mën a xoolaat son comportement heure bu waxee ay ndawam mën ko mën ko mën ci jàng ndax tey war na dépasser maire yi. déjà je suis am na des ambitions pour nekk maire de Dakar kon tey war na xoolaat boppam wane son patriotisme en tant que sénégalais. dañuy ñaawlu yenn jëf yi nga xam ne ñi nga xam ne président Macky Sall moo leen créé de toutes pièces. fexe tey ba Sénégal xam nommé jox des postes de responsabilité ak ci bi am ñenn ñi nga souvent di créer ay schéma yoo déranger tout le monde dans le parti tey nag boo gisee maire communiqué na ci def alerte communiqué def alerte def ci sortie ak ñu def ay sortie mais man parce que cité ñi nga xam ne bi mu commencé manœuvrer yàgg na muy madame Aminata Touré bi mu commencé manœuvrer yàgg na parce que booy xool moom avant élection yi Gaston Mbengue la doon àndal Gaston Mbengue li mu doon apporter ci élection yi ci président Macky Sall moo doon seeti des leaders des personnes ressources yu bëgg a jàppale président Macky Sall ànd dem ci Aminata Touré ñu ànd dem yóbbu ko ci président Gaston Mbengue moom bi ñu bi président Macky Sall gagné ñu war a former gouvernement moo taxaw ne Aminata Touré moo gën Boun Abdallah Dionne kon moo gën pour poste premier Gaston moomu un mois quinze jours di ci ça fait un mois quinze jours dafa taxaw ne Mami Mimi Touré mi ngi def des réunions nocturnes pour lorgner la fauteuil du président di préparer pour 2024 loolu dañ koy dëggal parti bi waxagu ci woon mais ñii di alerter nii yëpp dañu war a citer madame Aminata Touré ci loolu la nekk. yow jàpp nga ne daal moo ci gën a fës moom waaye moo nekk di doxale noonu ngir rek euh, wuutu président. non boo créé ay groupe WhatsApp créer des responsables jeunes créer des responsables femmes Nek dans notre parti do dimbali jeunes do dimbali femmes ku ci am programme d'activité do ko def do ci japp sa propre programme nga yor au niveau du conseil ña fa nekk ñëpp amul kenn ko xamni ci cabinet ci parti bi la bok. Siri Bara bi génnoon naan day tontu démb si Modou Diagne Fada la nekkoon Daaru Muxti la dëkk ñooñu la jël Ñoñu ñoo koy du ko jëlal ay nit diko ko indil muy wax ak ñoñu. elle se prépare te loolu bu ko defee def na yufu jaam def na yufu gor def def na yufu jaam parce que loolu waru ko Moustapha Diakhaté suñu camarade la bu ñu respecté comme Mimi Touré dañ leen a respecté leen a naw parce que ñoom ñoom ñooy jiitu te ñoom ñooy adulte yi ñoom ñooy li ñu war woote ak ni ñu war a doxalee du loolu du rébellion wala du créer atmosphère boo xam ni dafay déranger nit ñi parce que li xew tey mooy parti bi yëpp dañu def benn bloc am benn dynamique bu dëgër derrière le président coalition bi Aminata Mbengue Ndiaye Moustapha Niasse di ay chef parti mais ñooñu sax xalaatuñu ñoom li Mami di xalaat kon loolu dañu war ci les alliés tey bloc bi ñu ñëw derrière président président Macky Sall commencé changer Sénégal ci liggéeyal programme bi nga xam ci la campagne mu ñun ñëpp ñu ànd si ak ñun ñëpp ñu campagne ba président Macky Sall falu am son programme liggéeyal ëllëg commencé di Sénégalais commencé mais est-ce que nous ñooñu tey ñoo war naan non ànduma ci lii ànduma ci lële di créer ay affaire di xalaat deux mille vingt 2024 te seet président ñu koy door a mu dese fi ay at yu dul jeex soxla sénégalais yépp ak sénégalaises yi soxla son parti ak coalition bi ñëpp war a nekk ci ginnaawam jàppale ko mu def li mu war a def kon ñun du ñu ànd ak Moustapha Diakhaté ci gis-gisam boobu parce que ñooñu aussi du ma rafetlu seen doxalin parce que nit ki bu àndeek yow ngeen séq teraanga bu dul teraanga bu dul bu nekk séq ngeen ko mais mais soxna yi président njabootam ak ñoom dañu siqat yeneen lien yu yu dëgër yu wóor muy ay teraanga yoo xam ni nit ki loo mer mer mer waroo fàtte loolu donc ñoom ñëpp dañu war a bàyyi seen xel ci yooyu su ko defee ñu gën a rafetal.